Rewmi 24 TV mingok ngoog mu mel ne kii di amadou ba ginnaaw rek ba mu defee ay bracelet moom tamit daal dinay rek indi ay bracelet ci sénégal ngir rek mën a dooleel li nga xamante rek moom mooy campagne mu doon ay bracelet yoo xamante ne kon daal ñu bari ña ngay toppandoo ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa ex passif ginnaaw bañ ko defee ñu gis ki nga xamante rek mooy xalifa ababacar sall def ko tey yi amadou ba moom it daal dinay ay bracelet am mu doon ay bracelet yoo xamante rek ko ko gis da nga rek ak yu pastef yi kon amadou ba indi ay bracelet ngir rek waajal li nga xamante ne rek moom mooy présidentielle 2024 yi kon mu mel ne daal waa Pastef lépp lu ñu def rek nit yi dañ leen ci toppandoo bu baax a baax ginnaaw rek ñoom ba ñu defee seen euh, bracelet daal di koy génne mu mel ne génne waat nañ beneen la sax waaye kon tey jii daal gis nañ ko ki Amadou Ba daal di leen di toppandoo ci la nga xamante ne moom la ñu def ñoom mooy ñu muy waa Pastef kon kii di Amadou Ba daal lii mooy bracelet am daal dinañ agsi euh, kon ci euh, Sénégal ngir rek mu mën koo jox ay ñooñam ngir ñu mën koo takk ngir baatal li nga xam ne mooy campagne